yow da ngay am toor parce que tey am na ñoo xam ne yàlla lu mu ndaw ndaw may leen kàddu bu ñu bu ñu waxee sax bu dee fukki personne dinañ leen dinañ leen déglu di wax rek comme lu ñu waxoon réew mi Sénégal le pays de la teranga lañ wax dëkku jàmm am na yoo xam ni wax dëgg yàlla mosuñu ko fi gis mosu fi am te ñaanu yàlla moom fi comme li nga wax tey bu jàmm am woon du ñu toog fii di siñaatir jàmm ci la lépp xaj te ay du yem ci boppu borom lu ñuy wax wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khash ay du yam ci bop borom tay buñu ñu ay ñom ñiko ko taal sax mën na ci bëgg gën duñ ci gën ñu ci seen yoon nekkul ñom mëna len laal té boba arrangé wul kenn di wax muy politiciens yi nekk ci dëkk bi ñu réew mi dañuy dem bay ko fi ku fi togat du éternel nguuru yalla rek mo du jeex nguur da fay jeex ñu fi nekk ak ñi nara ñew yépp lepp nañ ko def ci jamm ci fair play yalla mom moy joxe nguur nguur yalla moko joxe mais andak dal andak dal parce que ci la lepp xaj ci la lepp xaj dañ daal senegal yalla def ci jamm di nuyu suma wa village yi samay wajur jóge muy wa fanden ak waa di nuyu encore wa parcel di nuyu monsieur le ministre Amadou Ba di suñu ministre premier ministre nek fi pour senegal yepp di ñaan liggéeyam yàlla na ko yen bi président yen yàlla na woyof toll xam di nuyu Cheikh Oumar Anne di nuyu Adama Faye di nuyu sama per nag fa laa waroon jiitoo père Biram sama papa di ko nuyu am di ko di nuyu lor sama euh, commandant boobu xam di nuyu ñëw am sata sama staff bi ma àndal yëpp duyu masawu tamit ñu ne suuf parce que ñi ñu àndal amaana ñi ne ci suuf ñu ëpp te bu ñu bu ñu bu ñu sañoon ñu yéeg fii fekke mais amaana xaju fi